yow bi bëgg tisi bu rafet wala nga yor boutique bëgg a jënd jaayaat demal Pikine marché Zinc fekk fa waa Njaay Jesner. bi ni baxa la bien cristal la. rafet na fees na motif bees tàq la aussi jaune or bi.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

ay waay 2023 2024 Touba Toubacouta Bour Salou mo féete à droite Radiakhé bu Kër Fodé à gauche ndeysaan ñi bëgg wa Kër Fodé di bëgg wa camp mangé ko di bëgg wa Kër Moussa An Anne Toubacouta bu ngañ sar bu France borom do Ndofane waaye Famara Wat sa mbër baa ngi noonu Toubacouta di profito di nuyu sama frère Habib di ko wax joyeux anniversaire dundal lu bëri Fall Toubacouta Buur Saalum goote jëfoor soxooru borom jamono goote bëgg majani jaja butuba kuta waaye buuba kutaal tuuba kuta tuuba kuta rajaxe attention ñom ñaar ku ne ku ne avertissement arbitre sifflé watna Touba Koutara ya, Diakhé eh. Arit Bar na Diakhé jangan aca combat Fambouda Bassoul Pape Pap maron mënu woon Pap Pape Maroon sax wax ma xam bu join aca Pape komba pap maron Pape Maroon Fambouda Pap Maroon sax ko xam-xam mënu woon gannaaw Fambouda wala sax moomu basul baban Ndeba borom basul bëgg naa ko de ak Thank you. Maron Pap Maron satu ham-ham Fambuda Janjung nama Ispan ada sio pap pap dana pap maron pambuda dana pap maron 2 minutes Fils de Batine panas revans indépendance mom lañ jakarlo mom mooy borom ngeen lu vert li fils de Batline sigi mbolu Fallou Mbaye mbaru Fallou Mbaye baangi nonu fils de Batline mom moo won gannaaw biñ mujjé dajé indépendance moo ko daan té ñu dajé waat fi ci Kaolack ñu xor ba xam ndax fils day jël revanche wala indépendance day confirmer attention fils de Batine fils daan na moo jël na tànk ba dam ko bu yàgg oh oh daan na ko ci ay seconde acca sayeer ndaama Lamine Badi Sélé Lamine Badi Sélé moom mooy borom ngeen mu lu ñuul li bête à sayeer ndaama bu jokkul moom mooy borom ngeen mu lu rouge li bête à droite Thank you. Aliou daan na Sayer Ndama Odissele daan na Sayer Ndama Papo Ngane Sossokh Djily Sara attention Papo Ngane Papo Ngane war na ko ndombo

Baye Niass Boy Faye Toubacouta Ngagne Sarr borom France bëgg naa la de Diène Faye Nguéniène Toubacouta Buur Saloum Boy Faye docteur Biré Sassar Aliou Gaynako Sow moo daal flic quart de finale Cheikh Diagne jaxaw Fambouda ci wet gi Cheikh Diagne moo nu woon gannaaw lan Thank you. Yeah. Toubacouta Bour Saloum Boy Faye docteur Biré Sassar Aliou Gaynako Sow moo daal flic quart de finale Cheikh Diagne Diakhao ci wet sertan monuan moo ñu woon gannaaw ko am bu ko eh daanu ko daanu ko Boy Faye du nit Boy Faye bañ na Boy Faye bañ na waa mais Toubacouta daan na ko aca combat Toubacouta ak Boy Faye bi Boy Faye dem na ci table ba arbitre ne breakfast avant moo Boy Faye Touba ngi noonu sol ay dalam dem ci table go Touba ngi noonu aca Babou Ngane Sossokh Djiby Sarr licence bu Koutal Djiby Sarr wër nga ne attention Babou Ngane wër na ndombo Modou Saliou Faye la waaye la diva Papo Ngane siyaar naa la Papo Ngane Papo Ngane daan na licence Papo Ngane Sosokh daan na licence bu Koutal roog wa sanga kole we gim ka tim xel ne na maak te jamboñ waal yeg keer fils de sigi meru falu mbay ak Lamine Badi doomu kap mange ko ñi bëgg le grand Sele mele Badi Sele nu woon gannaaw fils de batin moom leen jàkkaarloo

jaas jaasi pël Djidiack moo féete à droite jaasi moo féete à gauche jaasi mbëru Medoune Diouf te Touba seeri na fi maada laye mba sombe gaan te xaat maaf kaana singe Gueye Matar Diop yor yaranka Gassi Peul Gassi Peul di la Guirasse Balde ana xa dibor ɓe sagatanga xana xa jong te ma mbabure tano maak demi final papa ngar sosoox lamin petit sele petit sele doomu kampuma sosoox bu sali seni la diva Ya Abu Bajalla sama xel dem sama grand papa nga so so lamin badi sele papa nga be lamin badi sele mbot wala papa nga lamin badi sele arbitre attention

bëgg waa Bassoul di bëgg waa Parcelles sama bu baasul Fambouda moo ñu woon de Boy Faye Fambouda Boy Faye Boy Faye daan na Fambouda Boy Faye daan na Fambouda Boy Faye Sokh final aca final poids léger Djidjack Djilass Basse bu Mbour waaye bu suba le 5 dimanche le 5 Grup, moo xewle grup wa association Ndiop Nial ñoo fa woote suba lay jeex ci dimanche bi le 5 tegal palu bi 1 million bas ngel jot moom mooy borom ngeen bulu bulali jarbaatu kase Diop ak jiidak bu jilaas ñi bëgg waa jilaas di bëgg champion yi nekk jilaas yëpp Babak ñoom jaan jilaas buñ limé ci waaye ñu ngi ñëpp di bëggee waa Mbour ñu koy bëggé bu baaxa baax di ñaanal dal na suñu borom wëral ay cëram te du dalay fanam ba singel jonne jiit ak ci quart de finale yi continuer continuer si eh attention Bass Nguel Dione Djidah Djilass Bass Nguel Dione Djidah Bass daan na Djidah Djilass laa ilaaha illallah Bass daan na Djidah Bass Nguel Dione jël na lamb ja Bass Nguel Dione Bass li muy def aca final Papa Ngane Sokh Sokh Djidah Saar moo féete à droite mbëru Saliou Faye la seen yi ak Boy Faye mbëru Amadou Cissé mbëru Medina mbëru Passy waaye di bëgg Ahmed Ba lancé tey daa seetaan si Ahmed Ba borom kër Maama Lamine siyaar naa la doomu ndeyu Jean Marie Ngom borom Simon Dieng waaye Moussa Mbodj le policier borom Diagane Barka di bëgg Abdou Ngom le grand agent immobilier Birane Ndour bu Ngagne Sène borom Sokone bëgg naa ko de njëm final njëm fereer a yega maafel di bëgg sama grand Arfa Faye Potior di Aliou Faye Mamadou Faye jaxale sa ndar waaye di bëgg di bëgg Marcel Marcel Sarr le policier rakk ci docteur Biro Sarr Tam Jo Isir Jogondong borom Fadial Grand Pierrot Ndiaye Camarok attention Baba Gar Sosokh Boy Faye Faye le seni begel ma la diva bu Baba Gar Sosokh ne ko maa ngi koy siyaare Baba Gar Sosokh Boy Faye attention Baba Gar Boy Faye Boy Faye Papa Ngane Jiri Sara la ilaha illallah Papa Ngane Boy naa ko soo maa de moo daa juk réplique Papa Ngane soo soo Boy incroyable Papa Ngade nit Allahu akbar falu kana ser borom jaay ta ser borom marché seng borom gunjaan bëgg naa ko eh, boy fay daan na papa ngaan boy droit mbokk amateur yi ak ñuy dund làmb yëpp di jàppale Lamyn TV kele yaa ngi nii yéen a ko doon laaj yegg si na ay kele ISB yoo xam ne daa def son làmb yi gën a neex ci 2023 bi Mbayang Loum day faatu Adama Jali Faya Mbodj Faat Ndiaye Baye Faat lépp a ngi si biir ñu gënal nañ leen kele yi di ko jaayee 10 000 francs képp ku bugg a jàpp si combat bi rek bugg a déglu ay son yu neex ci sa oto wala sa kër wala fu mu mun a doon voilà numéro baa noonu wooteel am sa clé premier clé baa ngi nii Jean Marie Ngom moo ko jënd borom si moo jënd waaw mi ngi noonu ah dix mille francs ñaari junni la clé yi di wecceekoo comme ni ko gars yi di waxee tout droit son lamb yi gën a neex ci saison bi ñu ngi si biir ku ko jënd doo ko recevoir